dal leen ak jàmm na la waa dig def ba jàpp rangu di xale bu jigéen bi mel ni kuy jaay boppam ci réseaux sociaux yi ndax ak colkam bu bon ak i vidéo yami def ci compte Instagram wala sax ci Facebook rangu di xale bu jigéen bi moom compte Instagram bi ñu bind rangu the officiel xamul ni woon waa division des investigations criminelles ak waa division spéciale bi nga xamante ni mooy xeex lépp lu jëm ci cybercriminalité ñoo ngi koy topp di ko suivre discrètement ngir teg ko loxo bu ñu sukkandikoo ci journal journal bi di Libération enquêteurs yi dañoo euh, lii di compte Instagram bu Rango gannaaw ba ñu yegee ni rek kii di Fatimata Bari ñu gën ko xam ci turu Rango dafay waaj a organiser ab yendu party àllarba ji ñu génn ca benn hôtel bu nekk ca Ngor fu sorewul dara ak corniche bu Almadi enquêteur bu division bu division bu cybercriminalité ab lien lañ daal di utiliser rek ngir infiltrer ki nga xamante ni moo di Rango boobu lien sax moom la way takk der yi daal di utiliser mu dakk leen di yóbbu ci site pornographique bi nga xamante ni rangu ak i xaritam fa la ñuy publier ay vidéo boobule lien nag pour nga am ci accès il faut nga fay xaalis bu weex dàll waaye nag ñi di enquêteurs yi ñoom def nañ seen kémtulaay katan ba dal di contourner boobule barrière te boobule site nag ki di rangu ak ay xaritam daanaka lépp lañ fay wane moo xam seeni sexe moo xam sax bu ñuy def ay rapport sexuel lépp la ñuy filmer di ko dugal ca boobule site enquêteurs yi boobee dina am leneen lu raw lu dut yendu maanaam dina jax loolu loolu lay waral ba tax ñu def li ñu man ngir ñu infiltrer ki nga xamante ni moo di rangu mu mel ni nag enquêteurs yi seeni effort moom neenul ndax enquête bu am solo bi ñu def moo tax ba ñu dal di xam heure bi ak barab bi nga xamante ni fa la yendu parti boobee doon amoy ba tax ñu daal di fay wàcc daal di arrêté ba jàpp lu toll ci douze personnes ak gérant hôtel ba ak ki nga xamante ni moo ko organisé woon di rangu ñoom ñëpp jamono ji ñu ngi ci loxo yi waa division des investigations criminelles